Chérif ñu door jàngat bi comme ni ñu ko waxee woon euh, tey nag li ko soxal muy euh, màggaluk 4 euh, avril. 4 avril incha allah dimanche la ko Sénégal di célébrer mooy bis bi moomee suñu bopp fête gi nag Sénégal yëpp la mais particulièrement képp kuy force de défense et de sécurité daanaka mooy homme de tenue yi seen fête la leen ci daan delloon lu kël ci défilé yu mag nag. Mm-hmm. mais ku ne xam na ni daaw ak ren amut ndax mbas mi comme mbooloo dañ koy tere. Mm-hmm. ren prise d'armes mu lay am rek fële ca palais de la république ci teewaay président de la république nga xam te mooy chef suprême des armées ak njiitu institution yi armée boobu sax gis nga démb le général Cheikh Wade mi nga xamante ni kon mooy chef d'état-major général des armées ñu daal di koy installé. Mm-hmm. mu wut fa général. Euh, aérien bi nga xamante ni kon moom mooy biram Diop mi tàggoo altine bi passé ba tax na kon suñu doyen Tandaxa Ndiaye kenn du ko présenté xam ngeen ko ca RTS. Mm-hmm. seen mi ngi koy wax depuis une trentaine d'années. Mm-hmm. mu doon nekkoon militaire moom yi parce que surtout ci parti bi nga xamante ni. mooy parti sport ñu koy wax aspa aspa googu xam naa moom la ni ubbee ndax gëj nañ koo dégg doyen ci ah ci football beeg ci yeneen discipline te ku daa ku daa wax voilà ci yu bëri quoi aspa moom ana ah, ah aspa waaw ci basket euh, nag mi ngi fi ñu ngi koy suivre bu baax a baax wante xëy na résultat yi parce que boo xoolee en général nit ñi aspa dañu koy xoolee le football football hmm. mais natation ma ngay dox athlétisme ba ma ngay dox judo ba ma ngay dox mais yooyu nit yaakaar naa ni bu football ba doxul dara doxul alors que am na yuy dox c'est vrai que nag euh, comme ni ko waxee football y a o et des ba mm-hmm. léeg-léeg ASFA itam boo xoolee euh, temps yi dañu am ay jafe-jafe mm-hmm. parce que xam nga si recrutement ak yooyu parce que ASFA euh, pour nga ñëw fa il faut que ñu changer lu bare bare bare foofu mm-hmm. parce que xam nga ay militaires rek ngay jël wala nga jël de des des yoo xam ni mais man dama ni le très bon footballeur du ñëw mukk ASFA. le très bon pourquoi du ñëw ASFA. Mhm. parce que mode de recrutement bi moo tax. parce que mhm. xam nga boo ñëwee jëlee ay footballeurs yoo xam d'abord euh, pour nga ñëw ASFA en tant que militaire foo nga jaari bangu mhm. depuis formation ñëw mais bu fekkee ne da nga recruter civil da nga ñëw rek dans le temps mais tey jii xëy na ASFA on aimerait avoir ay joueurs yoo xam ni. xarañ si championnat bi ñu xam leen bu baax a baax. mais ñoo ñu du ñu ñëw parce que conditions yi ñu ñëwee mooy tax. mais ci biir militaire xaw war na am gars yu xarañ ci bal bi quand même. waaw waaw waaw dana am dana am mais nag ñu xarañ bu baax a baax a baax dëgg hmm. ñu euh, doo leen mën a am. dama ni tant que changé wuñu mode de recrutement ba. dafay xaw a doy waar. bëgguma dugg si détails yenn yi si biir. mais mën ngeen jël modèle lu douane gis nañ fi douane également ñu ubbeeku. waaw xam nga douane moom euh, paramilitaire la c' est est bon mm. c' est vrai que force de défense et de sécurité mais douane euh, dafa nekk équipe paramilitaire boo xam ni mënoo ko tëkkaleeg ASFA. Mm-hmm. ASFA beneen institution la boo xam ni ak fa ngay jaare mm. mais il faut nu changer yu bare bare bare yoo xam ni ci biir. vraiment le commandement euh, militaire xam naa ñu ñu bare bare xam nañu bu baax li may wax bëgguma daal. Mm-hmm. dugg en mm-hmm. mais beneen bi mooy yeneen discipline yi aussi est-ce que ñi ngi fës. yaa ngi wax natation basket athlétisme. ah oui waaw xam nga nag itam yeneen discipline yi parce que boo xoolee. Mm-hmm. la presse sportive euh, bu ñëwee dañuy daal di taamu seen ay discipline <laughs> boo ñëwee nga ni football wala nga ni basket à la limite le handball. mais euh, doo gis couverture yoo xam ni ni ñu koy defee pour le judo ñu koy war ko def mm-hmm. euh, pour la natation war ko def pour la boxe ak yeneen yi loolu itam moo tax yëf du fees noonu mais toujours est-il que au plan national mm-hmm. résultat yi ASFA mm-hmm. j'ai dit à le football le basket qui est rentré dans le rang temps yi parce que simplement basket ñoom it dañoo am ay jafe-jafe jadis le basket euh, fii mu ne da nga naan c'est vraiment un classicisme du du du du sport sénégalais. le mhm. basket au niveau ah de l'ASFA. Mhm. mais malheureusement temps yi dafa dugg dans le rang. parce que dañoo am ay jafe-jafe sur recrutement parce que xam nga ASFA du mën a recruter en basket de très bons joueurs. Mhm. parce que simplement li fédération imposé moo tax il faut nga am équipe cadette. ak équipe junior. ASFA mënu donc léegi da ngay bloqué wu. mënoo recruter lu dul ay militaires. Mm-hmm, mm-hmm. loolu moo di problème mu ASFA si wàllu basket. Sénégal moom mais mais ci yeneen discipline yi. yeneen discipline yi c' est ouvert. waaw c' est ouvert xam nga bu fekkee ni bu fekkee ni ASFA daf ci daf ci ñëw trop natation bi athlétisme man damay suivre ASFA quand même. Ah. vous avez de très bons athlètes. mais tey jii volleyball ak yeneen discipline yi nga xam ne ci. basket am problème mu jafe-jafe ci wàllu dem. conquérir li nga xam mooy les compétitions euh, continentales ndax dañuy gis même volet fédération volet yeneen fédération yi ñu am jafe-jafe. Mm-hmm. am koppar ngir yóbbu équipe nationale bi nga xam ci yooyu compétition est-ce que yooyu ASFA bu ci taxawee bu baax a baax a baax foog nga ni fësam dana gën a ñoŋ est-ce que du discipline mère yi ñuy wax muy football ak basket bi du ci loolu ngeen war a gën a mën a ngir mën a yëkkatiwaat <laughs> Coupe d'Afrique des clubs champions. Mhm. ASFA ci mhm. basket ci parce que man man dogguma la mais man su ma déggee ASFA sama xel ci basket rek lay dem automatiquement ci basket lay dem. waaw euh, a colonel Alassane Gueye feu colonel Alassane Gueye kooku moom kenn dootu ko fàtte ci sport militaire. Mhm. parce que yu baree bare ci ay résultats moo nu ko indil basket bi nga xam ne mën na lu wax le colonel Alassane Gueye. moo doon l'épine dorsale du club. Euh, mm. boo xoolee en matière de basketball dañ leen daan jox tous les moyens. daan nu ko am dañu amoon nag de très bons joueurs yoo xam ne dañu recruter directement dans le civil ñu indile mm. mais jamono jooju ak jamono ji du benn parce que boo bëggee recruter de très bons joueurs de basket ah il faut il faut sortir de l'argent mm. euh, encore que ñoom ils sont bloqués à l'ASFA. Euh, parce par mode de recrutement bi parce que fédération daf koy bañ. par contre boo demee athlétisme un Moulay Sonko. Mm. c'est c'est un civil civil la boo demee dans l'équipe de football aussi il y a des civils mais civils yooyu est-ce que ce sont les bons civils footballeurs non <laughs> j'ai dit j'ai dit non parce que moo di ma wax léegi rek il faut que nous changer xoolaat bu baax a baax. recrutement bi moo di bi nu koy def. natation bi nag xam naa mooy gën a nekk sa passion ndax moom mbiram fee gis nañ la ci nga ciy jàngale. oui euh, oui la natation y' a pas de kooku ci parce que moi j' pendant dix-neuf ans entraîneur de l'ASFA natation. Mhm. suñu recrutement ni ñu ko doon defee moo di on ciblé des des des des des villes balnéaires nga dem euh, par exemple à Saint-Louis. Mhm. man bi nu may recruter ASFA jeune nageur foofu laa joge ak Guet Ndar si dex ga fa laa jànge fii euh, ñu gis ma yóbbu ma ma dem loolu laa topp hmm. recrutement ba c'est Gorée c'est Saint-Louis c'est Mbour hmm. ak Joal yooyu ñoo. Rufisque xanaa doo ko si moom. Euh, si am na mais. barewul trop barewul <laughs> trop ay ay nageurs. yu yu performant. Mm. yu jógee fële ak c'est vrai que am na. mais lu tax lu tax bëgg laaj lu tax ñun mënuñoo am ay Michael Phelps parce que li ñu am ci géej. 700 mm. kilomètres de côte ndox mi ni mu fi mel te Jeux olympiques ah, attention c'est vrai le Sénégal euh, compte plus de. 600 kilomètres côtiers. Mm. ou bien même plus mais nag attention faut pas confondre. parce que la natation sportive. Mhm. bu ñu koy wax dëgg. il faut nga am piscine. ay piscine ah, il y a piscine olympique au Sénégal. Ah. moo di la piscine olympique nationale. Mhm. ici les shops c'est des piscines semi-olympiques. Mhm. wala du mat. les hôtels boo gisee foofu ça c'est des piscines touristiques. dañu koy defal ay formats yoo xam ne yii. mais noo fa entraîner. alors pour nga entraîner réaliser une très bonne performance en natation. il faut absolument nga am une piscine olympique mm-hmm. si piscine olympique boobu nag nga mën a def des performances mais tu peux pas si ay piscine yenn yi géej gi <laughs> c'est bien mais nag géej gi euh, mm-hmm. tu peux pas sur le plan technique mënoo liggéey géej gi sur le plan technique mënoo fa liggéey liggéey boo xam ni bii dana tax nga réaliser ay performance yu mel ne que ay record ay Michael Phelps bu leur demander mhm. boo demee fale euh, aux États-Unis mhm. wala faneen ak faneen boo demee partout partout dafay am ay quartier bu ne am na piscine. Mhm. piscine olympique. kooku moom defe naa ni. <laughs> kon kon kon fii bu ñu yokkee mun ñu xel mun na daal parce que soo xoolee comme yi nga tudd ay Saint-Louis euh, ay gore mhm. soo fa demee da ngay gis ay xale yoo xam ne dès le bas naturellement la ñuy jàng comme gore par exemple soo demee en fait bu fekk mosoo fa ñëw xale yi ngay gis ñuy accroché wu ci chaloupe bi di wax pièce dans l'eau ils sont tellement doués que da naan ñii ku leen encadré. dinañ dinañ nekk dinañ dinañ am dara ci ci métier bi. waaw mais nag au plan technique mooy des. Mhm. parce que natation c' est un sport essentiellement technique et respiratoire. Mhm. su fekkee ni au parce que au plan technique mënoo travailler si géej gi. géej gi am na benn discipline léegi bu nuy wax euh, peut-être mhm. la natation d'endurance boo xam ne bi c'est des traversées ak yooyu day gis yoo xam ne ñii des fois Euh, dakaar Gorée par exemple day gis des gens yuy fii di dem. mais sur le plan technique. bu fekkoon noonu dañu amoon piscine defar leen. seen performance dana gën a yokk mais feeyum géej la rek da ngay dóor ndox mi di tap comme loolu nuy wax ak gendar ñu naan da xëcc rek laaw loolu moom am na jël ñoom seen am ngeen di responsabilité yéen collectivité locale yi kanam parce que ay piscine war ngeen a mën a comme il faut des niveau du stade Ngalandou Diouf ci tribune bu bees si ginnaaw on a prévu de mettre une piscine municipale. ah une euh, un centre d'accueil et un terrain omnisport ah. nga xamante ni di nga fa mën def foole truc ah. difficulté bi ci collectivité territoriale yi amuñu xaalis mm-hmm. am nañ ay partenaires yu mën a ñëw finance ko mais garanti lañ amako loolu c'est ah. des problèmes très profonds mais le projet est ficelé le partenaire est là disponible depuis deux parce que bii Mamadou Diop moo ko defoon bi mu wax ni maire Mamadou Diop moo ko fi defoon on tend la main au ministre des sports moo koy mm-hmm. wax mm-hmm. ñu ci projet boobu bu ko defee nga ñëw fa yow jël waa jokkul ba cëw leen. Mhm. ñu def bi ñu def natation. comme comme ni <laughs> daal bu ngeen ko joxee moyen mu indi leen nageur yoo xam dinañ mhm. daan tax Sénégal bu ñu dematee ci Jeux ci Japon. ñu mhm. indi fa raaya balaa boobu léegi ñu ñëw ci 4 avril bi. ñu ngi ko doon wax sànq ab ab bu dul sport ci ni ñu ko waxee ci ASPA gis nañu aussi. Euh, ren défilé du am malheureusement ndax ko Covid bi ñu bëggoon a xam symbole bi yéen ñi nga xamante ne ay militaire ngeen yàgg participer ci ay waaw euh, dafay nekk nag loo xam ne li euh, lu metti la di nga ko def nag parce que c'est la fête de l'indépendance la mm-hmm. fête de euh, tous les Sénégalais où ils se trouvent dans le monde bu nekk loo xam ne dañu koy ancré si suñu esprit bu di loo xam ne depuis ba nu moomee suñu bopp ak léegi mm-hmm. année 1960. yow mos ngaa défilé. Ah oui. Évidemment. tu ne peux pas être militaire, ne pas faire 20 ans de service sans <laughs> wala waa ji boo ci daa bokk préparatif yi en tant que soldat. ah préparatif yi moom parce que le défilé c' est quelque chose de sacré. pour le militaire. Mm-hmm. Mm-hmm. défilé euh, parce que boo xoolee sélection lay doon. Mm-hmm. c' est pas n' importe qui qui qui qui euh, sélectionner les meilleurs nga xam ni entraînement lay doon c' est un entraînement. très intense d' parce que dañu jox feet yi toute la solennité bi nga xam ni moom la mérité au mm-hmm. niveau des des des forces armées ba tax na léegi euh, au niveau des rangs comme dans les colonnes mm-hmm. au niveau de l'allure martiale nga xam ni euh, su fekkee ni lii tax ñuy invité des personnalités étrangères yu ñëw taxaw mm-hmm. am na si ñoo xam ni danuy xool défilé bi ndax jaar na yoon wala jaaru yoon parce que boo gisee un militaire le balancement des bras par exemple booy boo booy def marche. Mm, le balancement des bras booy ñëwee. war na ñëw si épaule ki nga xam ne mooy nekk sa wet. Mm. war nga itam sa bët. Mm. da kay xool si doxu waa ji ah, nga xam ne moo la jiitu. bu fekkee da ngay attaqué sol bi. Mm-hmm. da ngay par le talon. doo ko attaquer n'importe comment mm-hmm. yooyu yëpp même la respiration comment tu dois respirer boo jëlee arme yooyu yëpp dañ la koy jàngat léegi nag bu fekkee ne am na ay contretemps par exemple yow nga war balancer fii parce que pied gauche bras droit mm-hmm. pied gauche bras droit bras gauche pied droit loolu moom la ñuy def mm-hmm. mais léegi da ngay gis dans les gradins tribunes yi koo xam ni kii ñii ñu ngi jëm à gauche moom mu dem à droite si balancement yi nga xam ni kii ma nga yàq défilé ba. Mm-hmm. kooku moom dañu koy. mooy ñuy jouer contre temps contre temps. Ah. dafay daal di am mm-hmm. mais nag rarement. ñi dëggul taay pour pour mm-hmm. l'armée euh, rarement parce que dañuy sélectionner ñooñu. le défilé civil c' est vrai di nga euh, ah, da ngay toog di ah. rey rek. da nga bon da nga naan ay civil lañu. parce que ay xale lan tax ak taxawaay bi day yàgg parce que fajal ngay dem fële boulevard conseil yi quand j'étais au conseil régional avec le président Abdoulaye Faye mhm. le deux tey le deux tey la tey la doon nekk répétition mhm. générale en ah, donc xale yi dañuy répété lu ma trois mois <laughs> bu ñu répété jour bii la ñuy tànn ñi valable boo demaan wakaam général bi day taxaw ñëpp taxaw ñu génne ñi nga xamante ni respecté wuñu ak day xale buy jooy te dafa répété ay mois. Mhm. ñu génn ko le le le. may rendre hommage président Ablaye Faye. waaw conseil rek ndax si la daan profito. Mhm. di jàppale anciens combattants yi. waa Kennedy. Mhm. bu majorette yi. ak ah. toute la région de Dakar. ma koy rendre hommage tey tey may ma tuuti euh, doyen yàgg na ci arme bi ñu gis ni jigéen ñi xëy ñu ngi doog a génn ci mois de mars sargal leen ba noppi mais jigéen ñi. bi ñu duggee ci li nga xam te ni moo di armée police gendarmerie yàggul xëy na fekk nañ leen fa ci seen 4 avril yi euh, integration bi woon ci li nga wax parce que c'est technique euh, ni ñuy défilé ak ñoom seen integration bu jigéen ñi. Mm-hmm. Euh, ci défilé yi est-ce que c'était c'était facile. non du yomb moom. Mm-hmm. c'est vrai que nag jigéen ñi yàgg nañu si armée parce que des 68 boo xoolee. Euh, au niveau de l'école militaire de santé. mu ubbi ko il y a des médecins féminins. Ah yoo xam ne yii xëy na dañ leen am na ku ñu si jëloon professeur Khadijatou mhm. a fait le prytanée boo gisee léegi des médecins féminins yu dem ba nekk ay colonel mhm. ak yooyu la nga xam ne yàgg na. Mhm. avant que gendarmerie par exemple di jël. Euh, ay kii mais médecin militaire moom yàgg na. li nga wax léegi si affaire défi de préparatif bi ak yooyu. parce que au niveau de l'armée préparatif ba moom. Euh, c'est c'est constant. kooku moom dafa nekk loo xam ni dañu ko ponk bu baax a baax. maintenant nag xale yi nga xam ni si seen défilé ñu ngi jéem a essayer di dem mais parce que défilé moom kenn waru ko yàq sa doit être impeccable. Mm-hmm. ba tax na xale yooyu la bu fekkee dañu am ay contretemps wala des fois ñu am ay défaut. Mm-hmm. am na xale yoo xam ne ñii. qui ne marcheront jamais au pas du ñu ko mën mukk mm, mm, mm. parce que nekkul seen seen ils ont un problème de psychomotricité par exemple concentration bi compréhension duñu ko mën duñu ko mën parce que ñu taxaw day yàgg sax balaa défilé bay commencé yow boo xoolee léegi yow militaire euh, le jour du défilé ñu bàyyi la en base arrière c'est un arrière-goût d'amertume pour yow parce que sélection wuñu la si défilé ou bien nga ñëw ñu def la si réserviste yi moo di ñooñu nga xam ni dañuy toog à côté à mm. proximité. su fekkee am na défaillance kenn mm. ku am. malaise malaise ñu ñëw dugal la. xam nga ñooñu c'est ce qu'on appelle les remplaçants. Mm. Ah, ah, c'est frustrant euh, par exemple yooyu yëpp nag euh, boo xoolee euh, li waral loolu moo di foi bi nga xam ni. moom la le militaire di am que ce soit défilé que ce soit prise d'armes mm-hmm. loolu dafay nekk lu lu rëy la ci moom rawatina nag ñi nga xam ni au front de la troupe dañ leen di décorer. Mhm, léegi bi ñu amee indépendance ak léegi leen la am sos juróom-benn fukki ak benn muy 61 ci côté armée bi moom ci taxawaayam ci Afrique de manière générale ci monde bi parce que gis nañ ni puissance militaire moom ci géopolitique même ci diplomatie da ciy joué lu am solo boo doon noté tey suñu armée bi ak seen taxawaay. ah oui ah, bu bu doon noté moom ça je crois que euh, au niveau de l' Afrique de l'Ouest moom euh, man mën naa ni on est le on est le numéro un. Maintenant, sur le continent, c'est vrai que xëy na des armées aussi puissantes que ay armées euh, égyptiennes, angolaises, euh, euh, euh, euh marocaines. Bon, le Tchad, je n'ai pas dit, c'est-à-dire les soldats tchadiens hmm. ça, c'est des super guerriers. Ça, hmm. c'est des gens qui s'enfoncent comme des hmm. dagues. C'est des canons sans recul. Sur le terrain, bon, ça dit, ça réfléchit pas. ay ca en avant rek ça dit am nañu fit loolu la mais nag sur le plan de l'organisation euh, sur le plan tactique euh, armée nationale bu Sénégal Euh, kooku moom mënul am werante boo xoolee officier yu xarañ yi nga xam ni moom la ñu am mhm. euh, aux écoles de guerre dans le monde partout fu ñu dem da nga naan les sénégalais c'est des majors dana mais ñi mais c'est extraordinaire moi j'ai fait beaucoup de stages en Europe mhm. mais boo xoolee c'est pas parce qu'on est sénégalais mais on est fier mhm. on est fier parce que boo ñëwee si différentes écoles yi ba ñu lay woon li ci les majors. Euh, particulièrement c'est des c'est des Sénégalais. Mm-hmm. parce que on touche du bois ah gis nga yaa ngi wax Afrique réew yu bëri xam nañ coup d'état fii moom yàlla musal na ci. waaw Chérif euh, mm-hmm. kooku moom. Mm-hmm. il ne faut bon on dira jamais non mmh. ci leen mais ce n'est pas l'esprit du militaire sénégalais wala yooyu mmh. parce que nous avons euh, euh, une armée républicaine d'abord loolu mmh. euh, une armée au service de son peuple loo xam ne pour xalaat ay affaire coup de ça c'est Euh, le militaire sénégalais loolu. Mhm. Mhm. Euh, bokkul si ay idée. tout à fait xanaa question bi parce que ñun bi ñu ko ne daan nañ ko dégg am na émission sax def naa bu ngeen daan def RTS tuddee ko armée nation. Mhm. relation yi justement entre armée civil yi ak taxawaay bi gis nañ génie civil bu jafe-jafe amee ñu ne dugalee seen loxo ci contribution ngir dimbale askan wi ci ay tabax bâtiment ay yoon et cetera. waaw c'est ce la symbiose armée parce que boo xoolee euh, actuellement fii mu nekk nii armée dafa dugal loxoom bu baax a baax si euh, lépp loo xam ni la vie de la nation boo ji xoolee corps bu mel naka de génie euh, yoo boo génie nga xam ni des bâtiments des ponts ay un peu partout loo xam ne lii les travaux de terrassement yooyu yëpp génie dañu siy dugg ak yeneen i corps yoo xam ne le service de santé des armées je crois que ñoo ñoom seen xarañte kenn dootu ko werante parce que dañ participer bu baax a baax fournir ay hôpitaux yi yenn yenn euh, disons centre de santé yi un peu partout des militaires ñu nga fa di def seen liggéey bu baax a baax ak yeneen i discipline mm-hmm. euh, boo xoolee dans l'armée bu tubbee des maçons des menuisiers mm-hmm. des ingénieurs euh, boulanger bi boulanger bi boulanger bi am na solo comme genre ñoom chérif yi bu ñu demee gàmmook màggal dañuy dal ca wetu dañuy dal ca wetu waa armée ba nee na bu ñu xëyee Mao Cissé mm. fi la nekk ci télévision Futurs Médias mais bu xëyee day wëri mburu armée boo ne bi nguuru militaire donc loolu di wane waaw symbiose armée nation mais dañuy gis euh, li nga ko waxee temps ndax dernière question euh, doyen ak ak ak ak euh, acte yu mel noonu day acte citoyen euh, yoo xam ne armee bi daf ko jëmale ci nation bi euh, événement yu mel noonu daanaka lañ koy wane est-ce jàppoo ne également war nañ mën a def de sorte que askan bi fu ñu mën a nekk ci àddina di gis liggéeyu armée bi ndax day gën a tax diggante yi gën a tax respect bi ñu am ci ñoom également mu gën a am doole waaw c'est vrai xam nga bu njëkk dañ daan wax la grande miette mm-hmm. armée la grande miette y même des infos yoo xam ne yii dañu daan bañ mu senn wala di kële mais aujourd'hui on est à l'ère de la mondialisation ba tax na euh, yu bare bare bare kenn mënu ko làq kenn mënu c'est-à-dire ce ce ne sont plus des secrets mm-hmm. ay yu mel noonu peut-être xëy na ay yoo xam ne yi da ngay dem réseaux sociaux yi ay dénigrement mm-hmm. ay mm-hmm. kilo yu mel noonu nga malheureusement loolu daf say am mais aujourd'hui boo xoolee c'est une armée ouverte à son peuple yu bare bare euh, c'est une symbiose armée nation communication c'est-à-dire Euh, léegi boo xoolee année yu mujj yi mhm. les civils léegi gën nañu ñoomee armée bi parce que gën nañu ko joge cette symbiose armée nation bi nga xam ne moom la ñu def euh, ñu ne daan euh, militaire ñëpp war a sam dem defi formation militaire sax pour la discipline parce que gis nañ Sénégal quand même côté civisme am nañ ci problème citoyenneté te loolu dañ koy jàngale ba tax na ñu naan même service militaire dafa war a obligatoire mhm. pour yar nit ñi waaw xam nga boo tegee sa tànk bango rek mhm. la formation initiale boo demee fale lan lay jëkk wax moo di le civisme l'ensemble des qualités morales et sociales mhm. qui font de l'homme un bon citoyen connaissant son pays mhm. désirant le servir de par son rôle et son travail mhm. dans une communauté fraternelle à apprendre par cœur yow le militaire dès que nga agsi mhm. loolu la ñuy jëkk jàngal après li si des nag dañ fay mhm. tabax nit ah, oui oui ba soo xamee àddina sax ñu ne yaru militaire la yor euh, yaru militaire maanaam da ngay da xam nga civisme boobu ñuy wax weesuwul shérif nite nga xam ne kaas waroo ko sànni ci mbedd sa mbalit ak yooyu loolu yépp ci nite la bokk ak ponk sa réew et puis yaa ngi koy wax jigéen ñi ak seen taxawaay yàgg na yaa ngi wax médecin militaire ñun euh, am nañu chance tase ak ñoo xam ne euh, elles font partie des première promotions jigéen ku ci mel ni professeur Khadijatou Ba Fall ci weeru mars mi ñu doon wax ne formation bi ci bàngoo amul góor amul jigéen soo demee da ngay comme tout le monde boo accès jigéen mm-hmm. euh, ak quel que soit na nga mënti mel mm-hmm. dañ lay wat sa bopp ba mu set wecc jigéen même boo amee ay karaw yu rafet boo ñëwee da ngay watu comme comme la ñi lan lay def mhm. et c'est comme ça kooku formation ba moo ko laaj mhm. parce que il faut une certaine rigueur mhm. il faut dès que ñu am euh, loo xam ne lii que tu sois agressif agressif dans le bon sens c'est vrai que le militaire il est appelé faire la guerre. loolu mooy rôle la nation. waaw défendre l'intégrité du territoire national. ba tax na boo accès ci formation ba. mais buñ la deful yow jigéen buñ la ko deful ko ça parce que à partir du moment que nga engagé wu volontaire. Mhm. Euh, su les drapeaux mais c'est comme ça il faut subir la formation et loolu la amul yox yox yi amul ay kilo yooyu. Mhm. li góor ñi di def moom la jigéen jigéen di def. Modou Modou dégg nga ko bu baax. waaw dégg ko bu baax léeg-léeg ñu seen seen ay tunu de seen ay musóor mhm. waaye bis boo leen jegee euh, Euh, def loo warta def soo moytuwulee di nga di nga dellu gannaaw ndànk xam nga lool xale yi naan delloo avance fa ngay mujjee jërëjëf doyen <laughs> euh, Tandakha Ndiaye moom la ñu doon dalal ci 4 avril bi lañ doon waxtaanee euh, léegi léegi ñu soow ci invité bi